Je vends une Mercedes 2016 automatique complète. Kilométrage 67, carburant essence, Mercedes classe E, 6 cylindres, full option. Caméra recul, toit ouvrant, intérieur cuir, moteur sans problème, année 2016. Si vous souhaitez avoir des informations ou contacter, téléphone 77 484 87 98 484 87 98 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte ak kontaante di am mbégte tamit ak kontaante ci li nga xamante bi mooy koor gi niñ ko commencé ba niñ ko jeexale ci kàttanu yàlla di ñaan yàlla lépp lu fu waaye ñaan ci lu baax rek yàlla na ko suñu borom nangu te ful ko fosaare ko ci biir ak bitim réew ñuy bëggee ñëpp képp kuy safoo di tiitaroo Lutte Sénégal TV rek ñu ngi lay bëggee di la siyaar comme ni ñu ko defee ci wàllu làmb rek di leen toppal làmb ak li ci biir ak ñu bokk ci biir làmb ma waral tey ñu ñëw fi nga xamante ne mooy parcelle seet koo xamante ne bii ménager la nekk ci biir làmb ji di ci def lu am solo muy Ass Cissé dañ koy bàyyi mu nuyu nuyu ñu ñuy suivre su ko defee ñu dugg ci waxtaan bi mais lu jiitu loolu ngeen wéy di abonné site bi nga xam te ne mooy li Sénégal li ngeen bëgg ci wàllu làmb fii lay xewee ngeen abonné bés cloche notification bi xaar vidéo yi wàcc Ass maa lay nuyu di la ziar. maa ngi lay fay bu baax sëñ Thier nuyu sama frère caméraman bi. nuyu monde entier di nuyu waa Sénégal ahlu làmb ñëpp. Mm-hmm. di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq. Euh, di sant yàlla di wax alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin ci weeru shahru ramadan mubaarak bi nga xam ne dugg nañ si bismillahi rahmaani rahim ba di ci génn alhamdulilahi rabbil alamin di sant yàlla bu baax a baax a baax a baax ci fekkee gi ñu ko fekkee mhm. di ñaan yàlla liñ jaam néew mu bari yàlla nañ ko suñu borom fulandil Mhm. suñuy rëcc rëcc yàlla nañ ko suñu borom jéggal di ñaanal yàlla Moussa Dioum bu baax a baax a baax a baax a baax mhm. yàlla xaaree ko àjjana ak képp ku mu fa fekk suufu Tuuba oyof ci kawam am na solo bu ñu présenté As mooy kan bu ñu ci biir làmb As làmb As euh, benn jeune la boo xam ne virusu làmb da ko dugg rek mhm. euh, doon nekk ci benn école bi mu doon jàngee tafaagay dëkk à côté riir ba nekkoon foofu ñu daan daw di yërndu xam nga nit ki kumpa koy sonal yuuxu yeeg topp yi topp ci buy dem ñuy départ topp ci yuuxuloo yi dëkk ak suñu benn grand boo xam ne njuga ja tamit mu dend kër yaruñu mm-hmm. xam nga di nuyu de passage soxnaam sama sœur mm-hmm. Binta Diagne moom it muy bëre fii ci koñ bi xam nga ñu daan ànd ba ma njëkkee dem làmb damaa réer mm. stade waaw dama réeroon stade stade ba may ñibbisi waaw loolu daal yooyu yàgg na boobu presque est-ce que xam naa boobu cheikhu naa mi bëre est-ce que bu juddoo ci la ay ñaari at lay am de. Ah, ah. waaw serpent noir boobu. Ah. bu amee ñaari at ci lay yem. ci lay tomb waaw. Mhm. sa diggante Rock Énergie. Mhm. fan la dooree ñu ngi dégg ñu ne as li nga xam te bii mooy Rock diggante mag Rock Énergie mi ngi dooree ci li nga xam te mooy Xaadim Gadiaga bokkoon nga ci li nga xam te mooy ci staff bi wala boog ci président fan club bi loolu mën nga ci indi ay leer wala. waaw li ma dugal Rock Énergie parce que man dama daan fréquenter làmb. Mhm. suñ footballaan ba pare nii ñu nag suñu gars yi gars yi séddoo nii teg jënd ataay ma ñoom Mbay Faal mhm. ñoom congaan sama gars yi mhm. xam nga bu ñu toogee man dama daan rocceeku jël sama xaalis demee ko stade mhm. donc fa dama daan fekk ñoom conke sil ak yenn booy ñoom taala gaynde ci bunt bi des fois ma leen daggal billet ñu naan grand bi ci làmb la bokk yàlla def xaadim gajaka bëri woon benn combat bu amul litige baaji ne leen am na benn grand bu dëkk parcelle unité onze kooku archive bi ngeen ñëw bu ngeen dem këram rek am na ko parce que temps yooyu sport de chez nous moo daan am mais man toujours dama ko daan dama ko daan enregistré dama ko daan enregistré émission bi dama koy enregistré hmm. léegi nag ku ci amoon litige rek loo soxla rek da daan ñëw ci man léegi après boobu Demba Jaay dem si yàlla si ñu koy ñaanal boobu mu ngi woon Paris hmm. bi combat xaarim bi amee litige ñu ñëw ci man ma génneel leen ko xaalim jël cassette boobu envoyé ko Demba Dia. Mhm. boobu noonu laa ko ñàkkee. donc ci lañ def délégation ñoom xaadim Gajaga ñoom Talla ñoom sos jël si ma. Mhm. dama dañ bëgg nga ñëw jàpp ci écrit bi. Mhm. loolu moom ma dugal rock énergie. ma dugal rock énergie. ñuy dem ba jamono di gën a dox euh, su ma jumalee as tamit nekkoon nga fi li nga xam te mooy euh, agent wu Modou Lo. waaw après le temps ngay le nekk ménager waaw léegi noonu ñu nekk ci liggéey bi mën ak ñoom Pape mbay ñu nekk ci nekk ci nekk ci ba yàlla dogal ñu présenté ma Babou. baa boobu baabu moo yoroon ñoom dolf ñoom taala gaynde mhm. ñoom maîtrise képp ku nekkoon ci équipe bi ñoom yaaram de ñëpp baaboo leen yoroon mhm. Modou Lo boole maag baabu ñu pour ñu ànd di liggéey mhm. maag baabu lépp lu muy jox man la ko daan jox lépp muy blouson muy costume muy avance muy reliquat muy contrat yëpp sama loxo la ko doon teg ma koy yóbbul ñoom Modou donc loolu lañu amoon affinité di ànd ci liggéey bi baabu tamit formé ma ci côté management. côté management moom baabu moom ma ci. formé waaw mm-hmm. lépp lu ma xam ci ginnaaw yàlla baabu moom ko xamal. Mm-hmm. ba ci licence bi tey mën naa ne moom moo ma ber. moo waaw. de passage tamit may Max Mbergane moom it lépp lu ma lënt. Mm-hmm. lépp lu may laajte ci texte. waaw lu ma lu ma xamul. Max Mbergane laa doon woo. moom ngay laaj waaw moom laay woo mu waxal ma. mais agent bi sa digganteeg moom après lu tax mu jékki-jékki rek après loolu loolu arrêté quoi. agent bi dañ continuer di liggéey di liggéey di liggéey ba mu amul rupture ak baabu. waaw ba ñu amee rupture mu jël mu ñu jox ma licence jox la ko waaw. mu mhm. jox ma licence bi waaw ci laa mhm. nekk ménagère am. Mhm. moment bi depuis bi nga koy gérer ba léegi loo jàng si si sa euh, wàllu ménagement. non xam nga euh, xam-xam moom kenn du ko jeexal. day am looy xam am loo xam ne da koy umpale. ndax liñ naan làmb moom daa dem bët. page mille. nga jéggi frontière yi waaw daa jéggi frontière. Mm-hmm. donc des fois mu am loo xam ne da lay lënt nga woo Max Mbergane mu leeral la ci. Mm-hmm. waaw noonu daal laay dundee ci làmb. gérer mm-hmm. ko mel ni Modou yomb na yombul. waaw yomb na yombul. donc amul problème yooyu mais yenn saa yi da nga koy war a jot doo ko jot. doo ko jot waaw. problème mu appel day. day waaw problème mu gise tamit day am. Mm-hmm. des fois dañuy gëj a gise des fois dañuy gëj a déggante. Mm-hmm. mais lépp lépp rek nekk soxlay jamono. Mm-hmm. parce que nit ki dina am foo xam ne bu fa tollee tamit mbiram day gën a yaatu. surtout tamit ku qu'on dise star la suñu borom dogal na ko ci moom. ñi koy soxla dañuy bëri ay business am ak li muy lijjanti. donc man tamit damay nekk samay activité bopp lu bëree bari bari. donc ñoom tëdd fii lii. ak sta kii sportif de haut niveau yi. seen i combat du bari boo xoolee combat am ak Ama Baldé presque deux ans trois ans ñu ngi ciy waaj a dugg. Mhm. donc munoo toog sukku ci moom rek tamit. Mhm. da nga yor yeneen poulain yoo xam ne da nga dañu war a nekk Modou Lo ñu war a raw Modou mhm. donc moo tax suñu déggante du bari daal. du bari mais tamit ndax loolu du erreur maanaam ki nga xam ne mooy sa ménager moo lay doxal sa combat wala bokk mooy signé contrat yi. lu mën a am ci contrat yi moom moo la war a woo informé la te kooku bu la wooyee du la jot ndax loolu tamit du xaw nekk ay. non ak ak euh, WhatsApp yi léegi du demee noonu parce que même bi mu nekkee Paris. waaw su su ma joxee CNG euh, benn courrier rek dama ko koy. da koy envoyé ne automatiquement mu tontu ma ñu wax ñaari moo ñetti moo. Hmm. après on passe waaw des fois. si WhatsApp bi la ñuy bàyyilante ay vocal des fois mu nekk entraînement wala muy nelaw wala mu nekk yeneen business am man tamit damay nekk sama yeneen business. Mm-hmm. des fois nag ñu gise comme des fois ñu joxante rendez-vous mais daf maa jiitu keroog ci kër Moussa Dioum. Mm-hmm. le man may ñibbi si ay deux heures laa fa ñëw ba may ñëw. fekk moom ñibbi na waaw mu jotu ñoo gisee quoi. Mm-hmm. surtout téléphone lañu ëpp lu ñuy déggante. <laughs> ndax mës nga signé contrat bu guddee bu diiree comme diggante Modou Lo ak Ama Baldé mës na am bi nga dalee nekk ménage ba léegi. non non bu mel nii moom mosul am moom wax dëgg yàlla non mënul am. Mm-hmm. parce que tamit bon Covid bi liggéey na ci lu bari. Mm-hmm. Covid bi am na ci bon problème mu date ak blessure bi. Mm-hmm. donc defe naa moo tourné affaire bi ba heure bii. keroog seet naa ki nga xam ne mooy Bira Sène le président de CNG mais li nga xam te moo concerné diggante Modou Lo ak Ama Baldé dafa comme ni mu waxee ka mooy ñaari mbëri ku ci nekk actuellement libre nga ku ci gis combat war nga xaa a jël. ndax Modou Lo amoon na certificat médical boo xam te bi waroon na ko déposé CNG mais ba léegi déposé wu ko. Mhm. ak tamit loolu lan mooy problème moo tax ba léegi déposé wu li nga xam ne mooy certificat guérison bi CNG. non certificat guérison da nga koy jot nga soo ko déposé. Mhm. parce que da nga feebar. waaw dem hôpital nekk sous traitement. Mhm. donc même bu ñu la appelé ne la le 27 nga ko war a indi. waaw bu fekkee ne le 27 boobu wéroo nag. médecin bi du la ko délivrer. du la ko jox déedéet. da ngay wér. mu def constat xam ne wér nga mu de mu mu délivrer certificat de guérison. Mhm. bu ñu la ko joxee nga jox ko sa manager sa manager dem déposé ko au du CNG. Mhm. donc lu tax ñu kiiwagul damaa jàpp ne wéragul. wéragul waaw mais gars yi jàpp ne Modou Lo wér na si nekkul day wal Ama bale ndax mi ngi ci ay entraînement mi ngi ci ay activité non d' après loolu lan la ciy gagné. Mhm. non non du ci gagné dara. parce que Modou mi ngi entraîné mi ngi peut-être même bu dee entraînement mu ngi koy def. waaw tànk yi la mi ngi man bi ma ko mujjee dégg dafa ma ne damay nii rek. waaw même Ibou Diouf loolu la ma mu ne moom Modou mi ngi doon daw mais comme gaañu woon ci tànk mhm. ci loxo la gaañoo woon mhm. parce que man bi ma ko woowee première fois bu ma wax ma ne même affaire bi ba ci gaañoo mhm. entraîné naa ci vingt minutes mais bi ma ñibbee sama kër laa sentir douleur bi ba mu ñibbisee Sénégal tamit mu ngi ci doon entraîné mais am na mouvement yoo xam ne mënu ko ci woon mais comme nit ku yaramam tàmmee entraînement manté entraînement dina maintien Vous êtes jeune bachelier, étudiant ou professionnel vous êtes créatif, ingénieux et passionné par les domaines qui gouvernent le monde de la science et de la technologie. Profitez de l'offre de formation dans les filières telles que réseau et télécommunications, statistiques et informatique décisionnelle, gestion des entreprises et des administrations, gestion logistique et des transports. Cela vous est offert par Ziguinchor Institut Polytechnique, ZIP. Les inscriptions sont en cours et se poursuivent. Il est encore temps d'effectuer vos démarches pour une admission dans l'une de nos filières. Pour plus de renseignements, visitez notre site web www.zip-du6edu.sn ou par mail secrétariat-du6edu.sn, téléphone au plus 221 33 991 00 68 ou 77 460 16 09. après mi analyse yi génne rajo yi génne mhm. ci la xam gravité affaire bi. Mhm. comprendre noonu la demee. loo ko xamee mais maman bi ni Modou Lo ndax yaa ngi déggante ak moom ci wàllu état de santé bi fan la toll ndax wér na wala wéragul ndax lu mu la ci mujjee wax moom. no comme moom ni mu koy waxee rek macha allah maa ngi sant yàlla. Mhm. amaana douleur bi métti na li ci des nag parce que nit di nga am lu lay dal. waaw médecin moo koy xam mais yow amaana mënoo koo xam. doo ko xam est-ce voilà non la demee léegi comme dem nañ ci médecin bi te médecin bi moo war a délivrer médecin bi mooy délivrer. médecin bi ba léegi kon délivré gul joxagul li nga non bu ko délivré woon rek daf koy indi ma yóbbu ko. Mhm. waaw tant que jotuma ko rek xamal ne délivré guñ ko. mais tamit comme li gars yi di wax est-ce que combat bi gars yi bëgg leen ko saison prochaine année année prochaine loolu wax ji bari na ci de. ñu yóbbu ko saison prochaine pour. mooy comme euh, mode est-ce que pare na à 100 est-ce que Ama Moodu ko pare gën a ko Moodu Moodu bu parewul du bëre. Mm. déedéet dafa blessé. waaw mais non mun nga bañ a am blessure mais nga nga a pare ci wàllu euh, état de forme wala boog ci liggéey. mais boo boo wéree dañ lay may temps nga dem entraîné ji. Ah. du da wér rek nga dem bëre ji. Ah. déedéet. Ah. déedéet. mais kon at waaw ñëwul waaw. bu amee bu amee guérison. Mm-hmm. dinañ ko may benn deux mois wala trois mois mu dem entraîné ji. Mm-hmm. waaw kon yow xam nga ni combat bi kon du am saison prochaine saison bi nekk nii. non ba décembre. Mm. waaw. ñu ngi ci kañ ñoo ñu ngi ci avril mai juin juillet août. yaa ngi ci yaa ngi ci première euh, presque yaa ngi ci mai. waaw. Mhm. mai juin juillet août. Mhm. septembre. ba octobre octobre mun nañ ci bëre. Mhm. bien sûr am nga ci yaakaar bu baax a baax. naa ci yaakaar bu baax. parce que ñëpp bëgg bëri combat yi pour mu teggeeku leen. billaahi di ma di masawu bu baax a baax a baax de passage Ama Baldé. di ko masawu. di ko xamal ne ko suñ borom moo dogal rek mhm. nii la mënoon demee ñu ngi koy massa bu baax métti na trop mhm. ni méttee ci ñaari mbëri noonu la méttee ci promoteurs yi noonu la méttee ci amateurs yi ñoo ñoo yàkkamti découvrir ñoo yàkkamti ñaari mbëri tàggalikoo waaye nag as waaw as seeti naa ki nga xam ne mooy Abdou Bakha mais ne na yéen combat bi da ngeen ci comme li ma la da ngeen a parewul te combat bi dafa ab dafa am ay dil ci suuf muy ci côté Modou Lo ci côté CNG ci côté tamit li nga xam ne mooy euh, promoteur bi léegi man li ma jaaxal mooy tey CNG buy dil ak Modou CNG Modou mun naa ne ne peut-être mun na toog deux ans trois ans du dem boo ko laajoon tey numéro Bira Sène amu ko. Mhm. boo ko laajoon numéro bi amu ko. ñu relation. Mhm. mun nañ toog ay at duñu gisante ñu man lan la ñuy dilee. Mhm. moo tax toujours ma ne bu ñuy wax rek nañ ko wax nañ wax dans le bon sens nañ wax ci xam-xam. ñu mbañ di bëgg li neex nit ñi wala lu nit ñi toogee grand place ñuy waxee noonu. Bira Sène ak Modou mun nañ toog bokkuñu affinité amuñu affinité. leer na ma ne boo ko laajoon numéro Modou xamu ko Modou boo ko laajee numéro Bira Sène xamu ko koo dul déggante du ngeen fréquentante nan ngeen di dilee nan ngeen di dilee amul benn affaire bu leen relier da nga gaañu médecin yi xool nañ ko médecin CNG amul lu muy des parce que médecin yi ñoo bind kayit médecin yi ñoo bind kayit médecin yi dañu xam CNG xamuñu CNG xamuñu ko mais ban intérêt lañ am ci loolu ay Sa Thiès Reug Reug ñuy féliciter suñu père Gaston de passage mhm. donc promoteur bëgg na tëgg ay événement peut-être lii moo ko tënk tey mhm. lii moo tax mënul développer dara am Modou Lo moo la gën a bëgg parce que làmb pression la dafa métti làmb lii moo ci gën a métti lii moo ci gën a métti sëgg bëre ci gën a yomb dem takk ngemb dem bëre ji mhm. moo tax ñuy massawu Ama Baldé bu baax mais moo xam ne moom it ni mu méttee ci moom rek noonu la méttee ci parce que Modou Lo tamit waa këram yaayam famem yàkkamti nañ débarrassé wu ci combat bi wuti leneen effectivement te làmb mooy seen business làmb mooy li seen liggéey. ama bu bëriwul bu amul xaalis Modou Lo noonu la dul amee xaalis. promoteur bi noonu lay xaalisam di bloqué parce que foo doon liggéey mu dem juri leneen. jur leneen. ni nga nañ ko teg ci xam-xam rek. ni nga déggee ñu ne Ama Baldé ñu ne Modou Lo dafa ragal Ama Baldé ñeme wax loolu yow boo ko dee déggee lu muy def si yow. non damay xam ne waxu waxu waxu waxu sabotage la rek. mais Modou Lo ragalul Modou Lo tàppet la moom wax ju yàqu la. ah gars yi ne dafa tàppet moo tax mu mu déclaré loo xam tane bi bii mooy loolu quoi. mais Modou ñëpp xam nañ ne dafa gaañu. Mm-hmm. ñëpp xam nañ ne dafa gaañu. Mm-hmm. waaw mais Modou Modou tàppeet la moom ëllu làmb lu ñu wax loolu. Mm-hmm. déedéet. loolu ay wax la nii rek. non Modou Modou Modou la yow xam nga ne loolu du xam-xam. <laughs> xel nanguwu ko. waaye na xale bi daa màgg de sële bi léegi yëkkale de. ah déggoo nga ne xale sëll bi. sëll bi léegi yëkk la waaw. ñu dañoo dajeeg bu ne. Eh. waaw dañoo dajeeg pointure bu ne. waaye bi xamewul janj xamewul jooñu. waaw ba ñu yegg ca ñun dañu ko lu mot dañoo day bëri ku bëri. mais est-ce que réellement est-ce que réellement bëri Lac de Bordeaux. Hmm. wax dëgg yàlla nag. mais est-ce que euh, Rock Énergie ak li ko wër pare nañ pour bëri diggante Modou Lo Ama Baldé pour bëri combat boobu. lu ñu am moo ñu ko gënal. Hmm. billaahi wallaahi taalaahi yow Modou Lo bu bëree dafay am xaalis. ci biir combat ba bëgg ci génnaat. loolu amul. Hmm. Modou Lo dugg na ci combat bu am problème mu tay tayle xaalisam bëri ko. Hmm. sàmm ngorom li ma lay wax ñoom président Lins Sarr ñi fi nekk xam nañ ko. Hmm. moo tax may la bu ngeen di wax da ngeen wax promoteurs yi tëgg Moodu ñoom ñoo xam kuy Moodu. ñoo xam kuy Moodu. saa problème amee moom mooy sacrifié wu. ngeen loolu la am mu njukkeel kooku mooy Moodu. musul yàq bés. musul yàq bés. pourquoi muy toog ba léegi di yàq bés. gars yi nañ léegi ñu ko de léegi daa mel génn la gën a jege bi ñu xamoon ci wàllu caacaay ci biir loolu moom loolu moom vie privée la <laughs> parce que gars yi des fois dañuy dugg ci vie privée jàmbur. Mhm. xam nga di ci wax loo xamante ne si moom la engagé. Mhm. man l'essentiel toog naa mu toog man moom yàlla mu wax ma dégg moo wax mu dégg. Mhm. li ma jàpp li ma wax ne mu ngi ci làmb mu ngi ci làmb. mu ngi xëy di entraîné ni muy préparé làmb lay préparé làmb. te bu làmb ja jotee incha allah lépp la ca war dana ko def. ñaan yàlla yàlla may ñu bi ngay mujjee wax ak moom ci wàllum làmb ak ci wàllum contrat ak ci wàllum blessure bi yan kàddu la doon loo mujjee wax ak moom Modou loo li ma mujjee wax ak moom. mu ne ma wax ji bari na. Mhm. man maa ngi ci làmb maa ngi entraîné guddi maa ngi entraîné bëccëg mbër gënu maa ragal defet mbër gënu maa bañ defet mbër ëpp ma la ëpp ma fayda su ma daanoo damay toog ay weer duma génn sama kër. Mhm. yor famille yor ndeyam yor ay soxnaam yor ay gorom. Mhm. yor yor ay frère yor ay sœur yor ay fansam. ñu koy hamul xamul nu mu toll. kon du caaxaanee làmb. su demee ba mu mënatu ko. Mm. kenn du ko wax bàyyil lii wax na ko gémmiñam sama nopp. te man loolu laa gëm nag. ka mm-hmm. ay waxu mbedd yi ay neneen non moo toog mu ak moom wallaahi ak koor gi. mu wax mu ma dégg te xam naa ne li may wax yaqin la. Mm-hmm. ndax moo luñ ko mënta cuumal ay ibaadu day jàng alxuraan ku nekk ku mokkalu alxuraan rek yaa ne ci problème waaw. defe naa ku nekkul ci ku mokkalu alxuraan. yaa yaa nekk ci erreur. Mm-hmm. kon nañ ko ci war a féliciter bu baax ci loolu. dañ ko ci war a yi naw ko ci mhm. mais pas di ko ci rétrogradé non non ndax ginnaaw yëpp rek lépp loo gis rek jàng yoo gis rek alxuraan ci gën tukki boo gis màkkaa ci gën mhm. def naa tey loolu dañ ko war a sagoo mbër mu mokkal alxuraan dañ ko war a tiitaroo ñun mhm. man bokk naa ci ñu koy tiitaroo ba pare dama ko ci ñeen nag voilà mais waa ñi ñoom nee nañ fi yéen loolu dafa gën ci combat bi rek ngeen di ut. wallaahi wallaahi lazim loolu amul. da ngeen lay rek ñun amuñu tànk ginnaaw. Mm-hmm. dañoo gaañu gaañu ne njëkkuñu fi gaañu mujjeewuñ fi gaañu. Mm-hmm. après ba Modou gaañu léegi ñaata ñaata blessure leen comprendre leen. gars yi moom gars yi booy dañuy gaañu di yàq combat yi rek. dañu war yàlla dogal war a gaañu rek. déggoo li ma la équipe nationale dem nañ fi bañ demee toog nañ ay jours yoo xam ne gars yi footballuñu mm. ndax lan indisponibilité. Mhm. indépendant de leur volonté lu war a am la rek. Mhm. nañ ko teg ci cadre sport rek. ok. Mhm. am nga njot rafet ni kat combat bi ko bëre saison bi ñu nekk nii. ci kàttanu yàlla parce que ñun ñëpp moom lañ bëgg te loolu la ñuy ñaan yàlla. waaw te ñu ngi ci daal ñu ngi ciy waaj ñu ci war a def ñu ngi koy def. wallaahi. est-ce que nekkoo leen di nelawal Ama Baldé ngeen di liggéey ci suuf di entraînement di préparer seen bopp. non ama mënuñu ko ama mënuñu ko nelawal ndax ama bu ñuy bëreeg moom day entraîné. Mhm. bu ñu bëreewul nag moom day entraîné. mais comme comme ni ngeen ni da ngeen a blessé nii comme moom mu toog di métier bañ a entraînement wala bañ a def lu war fekk yéen yéen a lu war ne yéen eh, du mhm. cuune Abdou Bakhoum du mhm. màgg na. kon nan lañ koy nelawalee wax toujours il faut muy yenu maanaa mu ne nit ki sportif de haut niveau la ñu nangul ko ko boo war a bëree droit des arènes ñuy nelawal ama ama Pikine la juddee du ngaaka mhm. ñi ko ëmb du ñu ay ngaaka ay Pikine ay Pape Diop Boston Paala Diop mhm. ay ponkal nekk fa ñu ne dañuy nelawal ama loolu ay wax ju yàqu la ay détails la déedéet mhm. ñoom ñaar ku nekk ama xam na ne frère am dafa gaañu mi ngi faju ama mi ngi entraîné mi ngi maintien am liggéeyee ko ko may muy entraînement kon Modou tollul fu mu koy nelawalee Modou mënul nelawal ama loolu ay wax ju yàqu la ndax CNG dem ngeen fa yéen waa kër Modou Lo yi wala yoon na si yéen pour xam fa toll pour état bi ak li nga xam mooy blessure bi. non non kayit yi waroon dem CNG yëpp man maa ko déposé. man maa Cissé maa ko déposé. Bira ba mu génnee sax dama ko woo mu ne ma tegal ma ko fi maa ngi ñëw. ba mm-hmm. mu ñëwee la jël

67, carburant essence, Mercedes classe E, 6 cylindres, full option. Caméra recul, toit ouvrant, intérieur cuir, moteur sans problème, année 2016. Si vous souhaitez avoir des informations ou contacter, téléphone 77 484 87 98 484 87 98. faïence yi nga xamante ni dafay décorer sa cuisine ba boy ak li nga xamante ni sa salle de bain and ak décoration bu amul fenn ay karo yoo xamante ni boo sa façade kër da ngay mel ni ku nekk ci panaal établissement Khadim Rassoul seeni karo du jël ben yoon Banopi ba noppi ay qualité yu baax la jaay te karo du yàqu waaw waaw kon mi yu dawal établissement Khadim Rassoul nga nekk Boru marché police ba C'est numéro téléphone 33 820 39 95 wala 77 720 32 44 établissement Khadim Rassoul nag dañuy ubbi du lundi au dimanche À dama Quand kon nag boo bëggee ay yu dawal gaaw seeti waa établissement Khadim Rassoul ña nga nekk foofu ca Parcelles Assainies marché police établissement Khadim Rassoul le